Dia dal leen ak jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi la ca gën a fës bokk na ci ah, jàngalekat yi benn ci seen i kuréel saa su kisam ñoom dañoo xëy banque seen yoxo li ko dalee ah, altine ji jëmale ko ba talaata lu ko waral ñooñi Mamadou Lamine Dianté ne wàllum ah, payoor yi la ñu mer ndax audit physique biométrie yi fonction publique bi amal dafa tëb ñenn ca yooyee jàngalekat seen i payoor weer wi jote guñu ci jëwriñ bi ñu denk wàllu biti réew Mankeur Ndiaye Zeyna Radiane wax taskatu xibaar yi tey jii ci ngoon bu ñeenti waxtu toftalee fanweeri simili mu nar a waxtaanee mbirum doomu senegal yi ne woon ca Bangui diwaanu Centrafrique fitna ga tax ñu yeb leen ci ay roplaan indi leen fii ci euh, Sénégal xibaar yi euh, biti réew yi ci bët Saalumu Soudan euh, fitna ga di wéy ñetti ay bés jàmmaarloo indi ay doomu aadama yu bari yu ñàkk seen bakkan kii di Mohamed El Béchir ñu koy xaar ca Juba tey ji mu nar a jàkkaarloo ak natangoom bi di Salwa Kiir xibaaru tàggat yaram bi daan ci ñëw li ci yenn kaay yi naka noonu ak Mamadou Mohamed Ndiaye yaatal gi na studio la dal nag ak jàmm tey uh, altine ji ba ëllëg uh, talaata ji ñi nga xam ne ñoom mooy benn kuréel uh, ci kuréelu jàngalekat yi di SAEMS CUSEMS ñoom dañoo fas yéene banque seen yoxo nu ñu dem ca daara ya jàngale ji lu ko waral ñoom jàngalekat yi dañoo mer ndaxte dañu leen a ci wàllu audit yi nga xam ne fonction publique amal nañu ko maanaam seeni payoor ñu bëri ca ñoom jotuñu ko tax ñooñu du Lamine Diante ne fépp ci Sénégal fas yéene ñoo dem ca daara ya daal di wax lu aju ci euh, njàng ak euh, njàngale dinañ ci dellusiwaat euh, ci suñu yeneen i xibaar jëwriñ bi ñu denk wàllu biti réew moom it nara daje ak taskatu xibaar yi tey jii lay doon bu ñeenti waxtu taftalee fanweeri simili moom Mankeur Ndiaye nara waxtaanee ak taskatu xibaar yi li nga xam ne mooy mbirum doomi Sénégal yi nekkoon ci diwaanu Bangui Centrafrique jàpp leen ay bés yu nu génn lañu leen dugal ci ñaari roppalaan indiwaat leen fi ci Sénégal fitna ga ne centre Afrique moom moo waral lu ni mel rado di eh, sàkku ñu bàyyi bàyyi méngandiku eh, Karim Wade ak képp koo xam ne dañu laa teg loxo ci lu aju saytu alal gi ñëpp bokk ñoom dañoo jàpp ne nag fi mu ne nii daal ba ñu ko dooree ba léegi mbir mi génneegu dara mën nañu leen bàyyi ñu dellu seeni kër bàyyi méngandiku ñu daal di wéyal yooyu lee enquête loolee moom mooy eh, seen gis-gis ñu wax ci leneen lu lëmbe Sénégal fi mu ne nii ab bateau boo xam ne mi ngi wuyoo Oleg Naïdane Antonov di ab bato boo xam ne dañu ko jàpp fii ci waaxi senegal mu doon napp ñu ne bato ba ma nga bàyyeekoo fële ci diwaanu euh, Russie moom euh, bato bi la nag la mu doon def euh, méngoowul ak yoon ba tax na jëwriñ bi ñu denk wàllu napp gi Ali Aydar xam le ne daañu def lépp lu ñu war a def ay daan bu ko ajoo it ñu laaj ay koppar yu bëri ñi nga xam ne ñoom ñoo amal lu ni mel dañ ci ànd ak Cheikh Abdou Khadre Mbacke Seck Aliou Diagne wuy ji nañu fële ca Dakar Nave navire bile marine nationale teg na ko loxo moom mi tudd Oleg Nedenov da doon napp ci suñu waax yi te dëppoowul ak charte réew mi navire bi dëkk Russie yàgg naa def lu ni mel. ca mu peinture turam ndax daf ko bëgg a làq daf ko bëggoon làkk dugg ci suñu biir réew di fi di fi napp ci amu ci autorisation saxaar bi ñu jàpp ko ay yooni yoon mu tudd Oleg Nedenov jàppoon noonu ko sax ak beneen saxaar bi nga xam ne buñ ko gisee moom tamit mu tudd Bogomolov dinañ ko jàpp parce que mënuloo ñëw amuloo autorisation napp ci suñu biir réew. dugg ci suñu biir réew di fi napp. ci mbir yu mel nii ay daan tëral nañ ko nguurug Sénégal fas naa yéene topp leen ba mu jeex. nekk dinañ ko jox ay amende li ñu yoon jox mooy mën nañ ko jox amende deux cent millions mën nañ saisir mbaal bi tax muy napp mën nañu tamit. Euh, mën nañu tamit saisir cargaison bi loolu yëpp dinañ ko topp mën nañu tamit topp bato bi ci yoon parce que délit bi mu def non seulement dafa ñëw ci suñu biir côte di napp mais marine nationale bi nga xam ni ñul ñooy suñu jàmbaar yiy surveiller géej gi mu ne du leen déglu du leen topp parce que moom nekk suñu biir réew ba pare naan autorité guinéenne lay déglu loolu du lu rafet. kii di ministre Ali Aïdar xamle na ne yeneen yi daan yu gën a tar ñu ngi koy xalaat ngir lii bañ di amaat. war nañu wut ay projet de loi yu bees yuy wax ni comme Mauritanie. loi dafa wax ni bu ñu jàppee bateau étranger ci suñu biir géej. bato boobu ñul ñoo ko moom loi boobu ñul tamit bëgg nañ ko dugal fii Sénégal ba président Macky Sall jàppale ñu ci ndax bu ñu ci jàppale mooy jàppale pêche artisanale bi pêche artisanale bi bu développé rek suñu population ak suñu économie mooy développé loolu la foofu la ñu bëgg dem am na code bu bees tamit bi nga xam ne yokk na amaan yi am na code bu bees bi nga xam ne yokk na mesures yi gën na dooleel euh, marine nationale gën na dooleel DPSP. lii di guléet ci navire russe bi yàgg na koo def moo tax suñ sukkandiku ci ministre bi yor wàllu napp bi jàpp bi doon bëgg-bëgg nguur gi ngir protéger waxu Oleg euh, Naidanov di euh, bateau bi nu jàpp fii ci senegal nappkat yi rafet rafetlu ko ci seen gis-gis napp euh, ci anam yu anam yu àndul ak yoon da leen indil ay gàllankoor rawatina nag gàllankoor yu jëm ci wàllu napp gi fii ci Sénégal ci seen gis-gis ñoom nappkat yooyee nekk fii ci Sénégal seen i jumtuwaay taxu koo xarala ñu ne nag gaal yu mag yi léeg-léeg bu ñu tasee ñoom ci géej gi jën yëpp dañu koy jël indil gàllankoor suñuy nappkat dañ ci ànd ak Nafisat Aïssatou Silla Mar Dieng ci ay leeral ñu demoon doxantu ci yenn tefes fii ci Ndakaaru gaal gi di Oleg Naydenov ñëwoon si fii di napp si suñuy waax te amul woon dogalam la tey ji autorité sénégalaise yi daal di teg loxo mu doon loo xamante ne nag suñuy nappkat rafetlu nañu ko loolu. bu ñu toogee ba gis bato yoo xamante ne arrêté nañ leen te mooy bato yu ko doon def di yàq yàq mu metti du ñu def ñu kontaan si ñun ñëpp. lii nii dafa yàq parce que euh, loolu yëpp bëggoon nañ képp kuy dem géej rek bëggoon nga lii. gaal gi nag jóge ca réewum Russie du benn yoon mu di def li mu mel bu ñu sukkandikoo ci nappkat yi le gaal yu mag yi du ñuy def lu dul di leen indil ay lorange. pêche artisanale bi dee na xoolal xoolal fii kay bi rek loo gis jën amul pêcheur bu jooyal si loolu li pêche artisanale bi doxatam parce que bon jën bi bu waree ñëw du ñëw. yàq bi ñuy yàq la ressource halieutique bi nga xamante ne ñooy ñëw au bord pour reproduire ñoom ñu doon dogaale en haute mer. di leen piller c'est ça problème. des fois di nga gis gaal bu jël fare dem géej seen mbaal yooyu ñuy sànni yàqal la loo xam ne soo teeree sax da ngay mujjee dem di lebi ji xaalis pour mën a jotaat sa matériel liñ lay yàqal. lu tollook ñeent fukki at Ibra Ndiaye mu ngi nekk nappkat fii ci quai de pêche bu Wakaam tey ji nag muy ñaawlu li yenn nappkatu Sénégal yi di lëkkaloog bato yooyee. pratiquement sax ay gaal yoo xam ne loolu kese mooy seen liggéey. te ñun sénégalais ñoo koy def dañuy dem si ñoom dem ba en haute mer mboota yooyu di leen jaay jën yoo xam ne yow nappoo ko en tant que sénégalais xam nga ne mënoo jàpp quantité boobu pratiquement ay mu am na moo loo xam ne loolu kese mooy seen liggéey. ñi di yëngu ci wàllum napp gi ba tey di ñaan nguuru Sénégal mu daal di doxal yoon ci ni mu waree te di leen di boole ci opération yi ni mel. état bi kañ saa ñun li ñuy ñaan moom mu gën a def liggéeyam. mais pratiquement gars yi ba tey ñu ngi ñu ngi ñu def lu naka sudul noonu si géej gi euh, dañagul de arrêté nañ licence mais gars yi dañuy sàcc. surveillance bi ñu gën ko dolli. et puis ñuy wax ak ñi nga xam ne ñooy dem géej xam nga euh, tey neexul ngay défendre loo xam ne yaa ngi koy défendre te état jàppalew la moo yi dem biir géej ñoom ñoo xam lii xew biir géej. Oleg Naidenov nag tàmm na moom di napp si suñuy waax du benn du ñaari yoon te amula autorisation ci fàttali nag organisation bi di Greenpeace mës na ko fee jàpp lu yàggul lool. ñu wax ci leneen dem ba diwaanu Kolda foofe ay jàmmaarloo yi faamoon diggante askan waa takk der uh, tax ñu tegoon loxo yenn ci uh, ndawi uh, dëkk ba fi mu ne nii yooyee ndaw bàyyi nañu leen ñu yëkkate seen kàddu ne daañu yóbbu mbir mi fa fa ne doone benn ci seen gis-gis def ñu woon lu ñaaw dañu doon dox doxum ñaxtu ndax ñu indi leen courant ca seeni dëkkuwaay ñu ne loole sax di ay dige yoo xam ne Aly Ngouille Ndiaye moo ko dige woon ci ndajem jëwri ñu génn dañuy teewlu euh, kenn ca ñoom moom sax moo yore seen kàddu mu yowu yoo moo ji Rahman Balde am lu mu dénk Abdoulaye jàll suñu ndaw foofee ca diwaanu Fuladu muy naqarlu tey xam nga ni zone Faraba mooy zone boo xam ne mooy abrité centrale électrique bi depuis 40 ans léegi nag ñu yoon ci xeex boobu ak synergie pour le développement économique et social mooy kuréel boo xam ne mooy ëmb 11 villages ci zone Faraba bi ñu commencé bi nag yàgg na démb nag dañ defoon benn sitting barke démb boo xam ne pour en tout cas rappeler ministre de ministre moo xam ne jëloon na ci fii engagement yu bëri pour mun a électrifier zone bi 6 mois que moom moo ne woon liggéey 6 mois day bëri mais organiser benn sitting ñu pare si sitting bi tey ci suba si booy jóg si organiser benn manifestation ci tali mais li ñu gën a métti nag moo di policiers yi ñëw fii ci ci ci ci ci ci ci suñu gox door booy gémi ak policiers yi door booy ba gaañ leen te loolu nag démontré ne en tout cas une fois de plus ñoo xam ne ñoom ñoo nar a aar suñu xale yi nekkuñu fii di aar xale yi ñoom ñoom fi nekk pour quand même de le désordre en tout cas nous le dénonçons à la dernière jusqu'à la dernière énergie et nous allons porter plainte contre ces génies là qui ont tabassé les gosses et qui sont là aujourd'hui on va les amener à l'hôpital et voir maintenant quelle position adopter par rapport à cette situation c'est c'est c'est c'est parce que nous ne trouvons même pas dans ñu jàll ca diwaanu Kédougou foofee ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu société civile bi euh, taxawa temm ngir ñu euh, bañ a taxawal euh, kuréel gi di ab mbir boo xam ne daal da yëngu ci wàllub liggéey di CSTTAO ñu ne société boobee bëgguñu benn yoon ñu taxawal ko foofee ca diwaanu Kédougou tax na ñu amaloon ab doxub ñaxtu lal ko ci jàmm ba nu ko jeexalee jël nañ li di ab mémorandum daal di koy jébbal gouverneur u dañ ci ànd ak Karim Kamara ci ay leeral. kuréel bi ëmb société civile bu Kédougou dox na ñaxtu samedi ngir xeex implantation compagnie sénégalaise transport transatlantique Afrique de l'Ouest pour ñoom Kédougou du mbalit fu ñuy sotti lépp lu bon. jaayuñu ay pièces su oto tey jaayuñu ay pièces oto suba ay poson la ñuy teg fii poson yoo xam ne bu ñu xasee ba toog fii village yi ci nekk yëpp dañuy jóg nit booy jiite ay population ba nga leen ba nga soxlaa mairie bi da nga ñëw ci population yi naxante ak ñoom ba am mairie bi tey nga am mairie bi yaakaar ne di nga def lu la neex li ma bëgg a xamal waa Kédougou mooy lii ñu def tey bu ñu ko continuer CSTAO du fi toog tey du fi toog suba li ñu li leen di ñaan mooy li ñëpp doon siki sàkk amul ñun ñi dañu yaakaaroon ne tey bu ñu génnee dinañu taal dinañu non ñun ay responsable lañu Kédougou boobu passé nañ ko. bi ñu yeggee gouvernance manifestant yi jox nañu adjoint administratif benn mémorandum Mame Less Kabou dafa rafetlu doxinu société civile bi te nee na mémorandum dina yegg fu mu waree. dañuy fàttali rek mairie Kédougou dafa affecté sous réserve ñaar fukk ak juróomi hectare CSTO ngir mu sampu ndëndam fii ci askanu Louga bi yittewoo uh, passeport fi mu ne nii jaratul ñuy ñëw ba ndakaaru wala ñuy dem ci beneen diwaan ndaxte dañu fa samp ab uh, bureau boo xam ne uh, day defar li nga xam ne moom mooy ay passeport ki ko am la woon di jëwriñ bi ñu denk wàllu bi réew wi mu def ay jéego taxaw inauguré boobu les centres dañ ci ànd ak leexal leexali Thierno Fall commissariat police bu Louga daal di daloo bureau passeport bu bees bi nga xamee ni si ubbi nañ ko fii ci diwaanu Njàmbur inauguration bi nag ki ko jiite woon moo di jëwriñ ji nga xam ne si moom la ñuy dénk wàllu kaaraange réew mi. dafa mel ne président de la république dafa seetlu na ko euh, région ñi nga xam ne ñoo ëpp immigré si réew mi maanaam euh, du ñu fa defar ay passeport mu jox mu instruction nag loolu na dañ maanaam muy région de Matam gis ngeen semaine passée def nañ inauguration bi muy région. de Louga tamit euh, muy si inauguration boobu lañ nekk mu des région de Tamba ak région de Kolda. jëwriñ ji xam le ni tamit ministère am dina taxaw kéemtalaay kàttanam ngir jàppale ñi nga xamee ni si ñoo yor kaaraange askan wi mu di police bi fexe nun leen gën la dooleel waaye itam fas yéene ñoo ubbi ay poste de police ci bépp département ci diwaanu réew mi. muy si wàllum effectif muy si wàllum surtout euh, jumtukaay euh, l'un dans l'autre en tout cas dinañu def tout. pour gën a leen renforcer gën a leen jox seen gëdd ñu xalaat tamit département bu nekk ñu def gën gànneew benn poste de police loolu aussi dëggal bi nga xam ne président jox jox instruction ci yooyu. bureau passeport bi nga xamee ni si ubbi nañ ko fii ci diwaanu Louga ndekk na mbégte ci askan wi ñu ngi ko xamee ci kàdduk Modou Mbéry Sylla mi nga xamee ni si ab député la ci APR fii ci diwaanu Louga. bureau passeport bu nga xamante ne tey confection de passeport da nga koy defar tey ci suba deux heures de temps ou trois heures temps nga jot sa passeport ma ne loolu ñu ngi koy rafetlu te démonstration bi gis ngeen ko léegi ñu déposé woon deux heures de temps après jox leen seen passeport loolu nag. mooy yoonu yokkute. bureau passeport bi nga xamee ni si ubbi nañ ko fii ci diwaanu Njàmbur nag day ñëw daal di saafara bëgg-bëggu askan wi nga xamee ni si yàgg nañ koy jàmbat askan woowu nag nga xam ni ñu ci bëri ay émigré lan toll ci lu ëpp ñaar fukki junni ci diwaanu région bi. Cheikhna Fall ñu lay sant di la gërëm ñëw fii ci euh, Ndakaaru dem ba marché Colobane foofee njaayum kawas doon lu dox jamonoy sedd kawas yooyee nag seenu njëkk euh, taxu ko bëri ñu ne ndax ci fëgg jaay bi lañ koy jëlee maanaam bal yu ne euh, daj yi paire bi tàmbalee ñeent fukk jàpp téeméer Maymuna Njaay ak Alioune Diagne doxantu fa defal ñu ci ab gëstu ñu teewlu la nu fa jëlee. njaayum kawas dox lool ci sedd bi grossiste yi ak ñiy jënd di jaayaat ku ci ne di ci dàq dara. kawas si moom yemuñu parce que am na ay catégorie am na yu jógee Amérique am na yu jógee Italie am na yu jógee France mais yu jógee Amérique ñooy gën a seer. am na soixante-quinze mille am na quatre-vingt su dee su dee Amérique quatre-vingt mille Italie soixante-cinq. Ah, danaa jaay benn trois cent danaa jaay benn juróom fukk. bal daal lay jënd dagg ko. waaw ah, di jaay deux cent trois cent. kawas fëgg jaay yi nit ñi taamu ko lool ci jamono jii jaaykat yi bég ci lool ndax li ñu ciy am. ñun dañuy teg rek di jaayaat mooy maire yi ak euh, xale wu góor yëpp lañ leen di jaay ñuy jaay fu ne ay Tamba ay Ziguinchor ay ci biir dëkk bi ay Diourbel Touba ñoom la ñuy jaay. seddaay bi moom moo tànnee tàngoor bi bu seddee dina ga dina jar mais bu tàngee moom kawas daanaka du jarat. dina jar ci sedd bi. même ubbi taayu école yi itam dana dana dox na xale yi bu ñuy football dana baax. jëndkat yi ñoom ku ci ne ak kawas bi la gënal. waaw tàmm naa kawas kay. dina la protéger bu baax baax a baax a baax waaw si seddaay bi ay tànk yu xar affaire yi demee noonu waaw. man montant wax dëgg yàlla dañuy xaw a moom dañuy préféré daal bu ñuy football sax ñun montagne la ñuy préféré quoi. ça dépend si ñun rek am na ñoo xamante ne dañ koy sol ak waaw pour fanaanukaay ça dépend daal selon ñun nii rek nuñ ko bëgg nuñ ko soxlaa quoi. ay bés yu ne jaaykat yi ay rouleau kawas la ñuy jaay ko ci marché bi. xibaaru biti réew ni ngeen ko waxee ca bopp ca gën a fës ca bët saalumu Soudan jàmmaarloo yi tar ñetti ay yu bës a ngi nii du toll ci ay doomu aadama seen seen lim takk lool faatu ca tax na njiitu réew ma di euh, Mohamed Omar El Béchir Omar El Béchir ngeen baal ma moom moo nara dem fële nga xam ne moom mooy Juba daal di fay dajak naataangoom bi di euh, Salva Kiir mooy xibaar yi aju ci euh, xibaaru biti réew yi Mohamed. Euh, Al Bachir nara da jàkk Salwa Kiir ca Juba ngir ñu waxtaane naka la ñuy def ba jàmm dellu siwaat euh, ca bët mu euh, Soudan ñu dem ci tàggat yaram bu bàkk bi daanoo lay doon football koy dooree ak ñetteelu euh, bëccëg euh, bi di Ligue 1 Casa Sport doon daje ak euh, port autonome bu Ndakaaru ñu jël ndam la nag di portuaire yi ndax ñoom ñoo daan ñetti bal ci ñaar yi ak Abdoulaye Diallo. ñetteelu journée bu championnat national Ligue 1 de football professionnel moo jeex ci dimanche bi ca ci jongante bu tar diggante ñaari équipe yi. sport autonome bu Dakar moo dem bett waa Casa bi nga xam ne ren ca Kolda la ñuy jouer seeni match à domicile sport autonome jot naa gagné Casa Sport ci ñetti bal ci ñaar Casa moo njëkk marqué à la quatorzième minute par Paul-Émile Tendin laata Port di égaliser à la vingtième minute par Fadel Fall juróomi simili Port dugalaat ñaareelu but par Mamadou Gueye bii dóor bal bi ak bopp loolu bi ñu tiré ab corner ñu ngi woon ca vingt-cinquième minute ca 28e minute waa Casa Sport dal di égaliser par Paul Émile Tendeng ñi signé doublé ci bile match waa Casa Sport ñoo ngi marqué seeni ñaareelu but ci kanam xumbute ci seeni supporters yu bëri yi ñëwoon poussé équipe bu Casamance ci score bu ñaari but fu ne la ñu demee noppaleku ca ñaareelu mi-temps bi la Port Autonome jëlee ndam li loolu bi ñu dugalee seeni ñetteelu but ci biir temps additionnel yi maanaam ca 91e minute but bi nga xam ne kii di Fadel Fall moo ko dugal bi ñu tiré ab corner moom it looloo ko tax a am doublé ci biir jongante bi victoire bi moo tax Port Autonome jël place bu njëkk ci bile championnat bu Ligue 1 de football professionnel ñii di footballkat yu Casa ñu dinañu recevoir Touré Kunda bu Mbour ci fan yi di ñëw Abdoulaye jàll ñu des ba tey ci ñetteelu euh, bëccëg gile soxal euh, Ligue 1 jàmbaar moom euh, am na nag ndamam lu njëkk gannaaw ba mu dooree yegoo ca stade Demba Diop ñaari bal ci benn la woon jongante bu méttee métti ca waxtu njëkk wa moom jaraaf daal ab nul la am ci kanamu Touré Kunda maanaam ndam demul ndam dikkul kenn ku ne benn poñ nga dugal dañ ci ànd ak Cheikh Sadbou Diarra Youssou Youssou Baro ñoo ñu jàmbaar am na ndamam bu njëkk ren ci championnat bi waa sal yi dañuy dugal ba ñu footballé septième minute bi ak Alsan ba pare teg seen tànk ci bal bi ba xaaj bu njëkk bi jeex ba ñu dellusee Yeggo dafay fipp ba égaliser ak Ibrahima wàcc cinquante huitième minute bi waa jàmbaar yi merci lool ndax seen góol bi dafay gaañu ci but bi ba génn loolu nag dina yee farandoom yi ba Emmanuel Gomis dugal seen ñaareelu but arbitre bi da koy njëkk a bañ ne hors-jeu ba pare dellusee validé ko. waa yëgoo yi merci lool waaye jongante bi dinañ ko woyal waaye dara du fa xewaat jàmbaar yeewu na. match yi metti woon na ndax ki ñu ko doon soqal muy yëgoo. équipe bu am bam kattan bu mun a xeex euh, ba tax na si yooyu ñu indi yooyu moo ñu sonal mais bon li mu sonal sonal tamit xale yi itam delloo nañu ko delloo nañ leen lu wër mu a delloo c'est-à-dire que on a été présent xeex nañu bu baax comme ñoom on a pu yenn saa yu téye wala football am ko yu leer ne liggéey je pense que euh, liñ ci liñ ci gën a yokkute rek mooy yokk suñu suñu confiance yokk suñu suñu suñu gën a liggéey pour euh, match yi di ñëw. si jogante bu njëkk bi Touré Kunda day match nul ak jaraaf ku si nekk am benn bal Ibrahima Diop mooy ubbi caax ci quarantième minute bi wante farandoom bi Lamine Barandong day dugal contre son camp égaliser waa Mbour yi. mënoon nañu ñibbi ñun ak ñetti poñ yi waaye dañoo jël but bi nga xamante ni booy xool ñu ko woon jël boobu fekk na xëy na situation yi gënoon a euh, kii ñun ñoo ko amee mais bii bu ñu jël ñun ñoo perte bal bi seen moitié terrain ñoom ñu def benn contre daal di ñuy dugal mais taxul ñun xamoon nañ ni. Euh, sunu sunu xale yi réaction bu ñuy am fan yi yëpp ñun xamoon nañu mënoon nañu ñëwaat si match bi te gis nga bu ñu ñëwee mi ba ñu waxee ak ñoom réaction bi si war def nañ ko. tey li ñu bëggoon amuñu ko mooy gagné jàppoon nañ ko sax mais yàlla li mu dogal mooy gis nañ ne ñun ñoo dugal bii bi sax sunu camp loolu day am ci football mais taxul ñu war a euh, yoxi taxul ñu war a aussi teggi sunu tànk nañu dem xayma li fi am yëpp liggéeyaat. defe naa ci loolu rek la entraîneur di sukkandiku championnat bi gudd na xëy na def na ñetti yoon gañewuñu mais loolu terewul ñu war a dellu si gën a liggéeyaat. jaraaf mu ngi si ñetteelu témboo si ñetti jongante jàmbaar moom ginnaaw ndamam li def na jéego si classement bi ba nekk sixième place bi ñetti poñ rek dox digganteem ak ki raw. Cheikh bu Diarra ñu wéyal xibaaru tàggat yaram bi ba tey ak euh, football Baye Oumar Niass fi mu na nii nag moom euh, bokk na ci ñi tekk tànk fële ca championnat bu Turquie mu daal di fay euh, dem nag ca club bi di Akhisar kii nag nekkoon US Ouakam dugal na juróom-ñeent juróom-ñetti bu ci fukki jongante ak juróom-ñaar jamonoy bër dafa dellu si fii ci Ndakaaru Abdoul Aziz Kane Baro demoon seeti Arka direğe nekk nañu ràññeeku ñu bees ci championnat bu Turquie ginnaaw ba mu fa ñëwee ren bokk na ci attaquant yi yëngal caax yi mu ngi am juróom-ñetti but ñaari but rek dox si diggante meilleur buteur bi. découverte bi xawoon na xawoon xawul yomb xawul jafe quoi parce que kii moo fa nekk Ibrahima Sonko bu nga xamante ni na équipe nationale Sénégal fii moo ma boolee club bi bi ma na ma yombal na ma nu ma xamante ak yeneen joueurs yi yombal na ma nu a a liggéeyee ak ñoom mais championnat bi aussi nekkul championnat bu yomb parce que équipe mag ñoo fa nekk te ñun suñu équipe nekkul équipe bu mag moo gën a nekk équipe bu ndaw championnat bi su jege Sénégal championnat Sénégal du nekk lu yomb lamb mais yàlla dimbali nañu ba bi ñu nekkee fii bi ñu doon joué wakaam ñoo ngi doon waajal suñu bopp si loolu ñu ngi doon waajal suñu physiquement euh, physiquement ak suñu bopp ñoo ngi doon jéem a fexe di ñafe ba nga xamante ni nii xalaatoon nañ ni bu ñu yeggoon ci benn championnat boo xamante ni nii moo gën a nekk championnat bu mag duñu du jafe si ñun quoi du jafe si ñun ginnaaw ba mu amee expérience bu njëkk bu métti ci dugal mooy ba mu demee woon daaw Norvège ci équipe bii di Brandbergen attaquant sénégalais bi daal dina yëkkati ku waat foofu ma changé mooy li na dem si yu bëri sama xel doon dem si yu bëri may am yow bu bëri yoo am damay toog di ko xalaat si biir terrain entraînement may am xel ñaar si lu may def mais léegi bu ma demee ba ñëwaat xam naa ni football bi jàng naa si ne football bi loo si mun munti def demalal sa bopp loo si mënti def bul am bul ragal loo mënti def tamit si biir terrain bi koo mën a dajeel yow soo entraîné ba pare ba nga leela ni physiquement pare nga soo duggee si biir terrain bi defal lu la war sa bopp su baaxee rek nga am talent après lépp day feeñ loolu laa jéem a loolu laa gën a dolli sama football mooy li may xalaat léegi si en dehors du bi lu may xalaat di sóoraale yeneen joueurs nekkatul si man lu ma ñëw rek mooy Sénégal tàmbali di ko bàyyi xel nank-nank loolu moo nekk léegi ci kanamu kii di bàyyi Omar Abdoul Aziz Kane ñu lay jaajëfal Eusebio da Silva Ferreira nekkoon nag ab football kat bu nu euh, ràññee mu nekkoon euh, Ballon d'Or ci atum 1965 euh, génn na àdduna amoon lu toll ci juróom ñaar fukki at ak benn moom nag def na lu jaloore yu bëri ci wàllum football fële ca diwaanu Portugal ga mu nekkoon dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne. Eusébio da Silva Ferreira nekkoon nag international portugais te moom cosaanam nekkoon sax ci réew Mozambique lépp si carrière am mu ngi ko defee ci club bi ñuy duppee Benfica ba ma amee fukki at ak juróom-ñeent si la ñëwoon ci club boobu di Benfica li ko sababoon nag moom moo nekkoon xarañteem ak. ay qualité ah, physique moom moo taxoon sax ñu daal di ko woon recruter ci atum 1962 ah, la jëloon li nga xam ne moom mooy coupe d'Europe gannaaw bi nga xamante ne Benfica moom mi ngi doon laale ak Real de Madrid te jamono kii di Stefano nekkoon moom sax ñu ngi ko doon duppee panthère noire bokkoon na daal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jàppale woon ñi nga xam ne mooy footballu Portugal daal di koy yëkkati ba sax lool moom moo sababoon ci atum 1966 réewum Portugal mujjoon jël ñetteelu place bitam yëpp nag suñ ko xayma mu ngi tolloon ci juróom ñaar téeméer ak fanweer ak ñett lim boobu si la jot dugal ci ay but ci carrière am waaye tamit def nañ ñaari yoon lii di meilleur buteur ci saison 1967 1968 waaye tamit ci atum 1972 1973 ba tey tamit ci atum 1965 moom daal ma moo nekkoon kii di ballon d'or mu nekk nag guleet nit ku ñuul doon am boobu la distinction te distinction boobu ñi ko joxoon moom mooy euh, France Foot dañ ko jox ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ñi gënoon xarañ ci footballeur européen yi Eusebio nag dañ ko terewoon daal moom mu daal di signé ci benn club boo xam dafa nekkoon bitim réew te tere bu ni mel kii nga xam ne moom moo fa nekkoon président moom moo ko defoon di Antonio Salazar Eusebio toogoon foofee nag ca Benfica fukk ci ay championnat ñoom jot nañ koo jël juróom ci ay coupe ak yeneen ñetti final yu Champions League Eusebio moom mujj naa jóge ci Benfica ci atum 1975 gannaaw ba nga xamante ne moom jël na retraite 1978 daal mujjoon na nekk ambassadeur bu Benfica ak bu fédération portugaise de football ci fan yi ñu génn kii di Eusebio ay yaramam dañu sutante woon moom nag daal dinay faatu waaye turam na des ci li nga xamante ne moom mooy taarixu football. Cheikh Tidiane Dione keneen euh, ku euh, faatu di yëngu ci wàllum euh, tàggat yaram di Moustapha Zitouni moom it faatu na ginnaaw bi mu amee juróom-ñett fukki at ak juróom moom nekkoon doomu Algérie xarañu lool ci wàllum football bokk ci fukk yi nga xam ne dañoo bàyyeekoo woon tugal daw dellu seen réew daal di fay taxawal équipe bu njëkk ci wàllum football ci Algérie ñeenti at laata Algérie di moom boppam ginnaaw tàggat yaram yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye moo xëy jàngat ak ñu ko. jërë ngeen jëf Sénégal ak coow li ko jamono ji di ñeenti ponk mu di wàllu enseignement supérieur réforme yu ñu ci def ak étudiants yi ne duñu inscrire mu di wàllu audit fonction publique ak ñenn ci agent yu jotul seen salaire ak lu aju ci logement conventionnel kilifa yu ñu génnee seen i kër yéenekaay bi nañu Macky Sall njiit réew mi xam la ne ne loolee nguurug Sénégal du ca dellu gannaaw Macky Sall nee na da tey dem ba jeex Pape indil ma xët u njëkk populaire bi nañu Macky Sall moo ko waxal boppam li nga xam ne moo di enseignement supérieur ak it audit fonction publique lu aju ci wàllu logement convention loolu lépp duñu ci dellu gannaaw lu torfe lu toll ne tarafatal ay ne ba tey ci xët u njëkk journal bi di populaire kaddu njiit réew Macky Sall muy xam le ne askanu Sénégal ñoo woote changement ñoo woote rupture mënu ñoo xam buñ ne dañuy def rupture buñ ne dañ fiy jëlee li fi nekkoon indi fi leneen kenn ku ca nekk di wut loo cay wax wala ngay taxaw naan du fi amee ci Sud Quotidien ñu gis fa ki nga xam ne moo di Souleymane Bachir Diagne mi nga xamante ne ji moo jiite woon commission bi ñu teg ngir mu saytu indi réforme ci wàllu enseignement supérieur nee na wàllu droit d'inscription bi nga xam xamante ne ji moo jur coow wàllu li nga xamante ne ji moo di euh, réforme yi loolee lu la bu ñu jël rek daat koy siiwal am na yeneen i yoo xamante ne ji soxal na wàllu njàng mu kawe mi ko jëfee njàng mu kawe dana gën kon mucc ayib bu ñu rek wàllu inscription bi indi ko ci kanam direct info xëy ñu xamal kaddu yi Macky Sall yi mu yëkkati moo di lan lu aju ci lii di euh, mbirum application réforme euh, enseignement supérieur ak logement conventionnel ak yu ni mel Macky Sall nee na loolee mënuñoo wax a wax a wax bañ dellu ci gannaaw fan la ko waxee le sole nañu ci mi la ndaje ndaje mi nga xam ne moom jiitu réew Macky doon na ko amal jëm ci waxtaan ak ñi nga xam ne ay kàngam lañu di intellectuel ak ñi nga xam ne ay niti caada lañu ci la Macky Sall yëkkate yooyu la kaddu ca kaddu yi mu yëkkatee ndaje ma it yamul foofee rek am na leneen loolu jiitu mi dellu si na ci le soleil moom it xëy ci dikk ak ñun ñu dem ci observateur Pape Samba Thiam tegal ma ko nii ñu xool lu aju ci projet bi nga xamante ne na ko jëm ci wàn euh, wàññi ndégulu a kaay bi di observateur xanaa ñu am ne mi ngi ko tuddee dégg ci wàllu yoon bu ko Macky Sall yàlla sampiwul boobu le projet ngir mu mën a sotti yëf yi kon dana jur coow ne sotteele ko noonee du yomb quotidien nañu leneen a ngi loo xamante du yomb ne lu aju ci li nga xamante ji moom mooy Sénégal ak ni muy doxee Sénégal ak ji maam ci wàllu koom Sénégal ak ay lijjanteem journal bi dañu waa FMI dañ ko far surclassé seen anam la yéen bi xëyee tey wàllu koom di économie mu di le quotidien dem ca ba jeex ñu delluwaat ci observateur xooli fa citoyen gëm sa bopp nee na waa cour répression illicite di kuréelu ñoom Aliou Ndaw gi jot na nag ñu évaluer seen i jéego xool li ñu liggéey li ñu def ak li ñu deful bu ko defee ñu leeralal ko askanu Sénégal ba tey ñu def ci observateur xooli fa kii di Bachir Sidibé bari na ñoo xam ne yàgg nañu dégg turam xamuñu ko Pape Samba indil ko téléspectateurs yi xëccal leen ko bàyyil ko noonee Bachir Sidibé mooy waa ji nga xam ne doomu Sénégal la ca Mauritanie la ñu ko tëj ñetti ati kaso mujj nañu ko bàyyi waaye dañ ko doon jiiñ wàllu terrorisme waa ji ne dañ maa tooñ tëj ma sonal ma toroxal ma ci liñ nga xamante ne nag moom la nekkal mu ne bañ ma tëjee ci kaso bi ba léegi dafa far sax jële ak ndof ki nga xam ne bu doful it soriwu ko yanu nay loxo moo di Demba Ba nañ ko xooli ci waay sport Demba Ba ma nekkoon ca Chelsea journal bi mi ngi ci jaaxle la tax mooy Chelsea ba abal ñu andi nañu kan bi moom Demba Samba ba nag journal bi nañu waa West Ham teg ci taabal ji lu toll ci juróomi milliards ngir mu ñëw football si leen ñu ba football bi wax ci li ñu moom mu di wàllu làmb bokk na ci observateur bokk na ci le quotidien bokk na ci journal bi nga xam ne moo di populaire ku ci nekk ci ñoom xëy ñu xamal ne Garga daan na la grosse ci nan la ko daane yéen yi dikk ci benn benn ku ci nekk xalaat ba nga ci amee ma dellu ci grand place xool la nga xam ne moo fa moo di lan Youssou Ndour ma woon ca grand théâtre keroog samedi yéen yu bëri xëy ñu xamal ne Youssou Ndour toj na ko grand place nañu waaye am na lu cay ñuul la VIP turoo rek fa nekk waaye ba ñu dikkee chaise ñu toog sax amuñu ko ay chaise amul foofee ba tey grand place ci ni mu demee di xamal ne lu aju ci ki nga xamante ne ji moo di madame Ndour moom ca ginnaaw podium ba la ñu ko tegoon chaise yooyu ngir mën a am chaise boo toog grand place nañu téeméer nga yëkkati joxe ko loo ko may doo am chaise lépp a ngi ci grand place loolee tax journal bi tënk wax ji ci lan mu di lan les grand bal de you